ñàkkum kérosène bi ba tey jile di wéy di lëmbe askan wi journal bii di wal Walf Quotidien di wax ni moom Sénégal dafa mel ni dafa dóor ab bal ci tànk bi li ko waral mooy ab guerre bu am diggante nguur gi ak ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllum pétrole bi Le Soleil di ñu xamale ni moom nguur gi mu ngi dalal xelu askan wi jëwriñ gi di Aïssatou Sophie Galadima di xamale ni lii di ñàq bu ñuy wax daanaka amu ci ba tax na am na bato bu ñu fiy xaax ñaax fukki fan ak ñaar ci weeru avril journal bés bi di ñu wax ni daanaka ab réunion bu tàng moo am ci kérosène Petrosen bi moom Sophie Galadima moom société libyenne bii di Ola la joxoñ baaraam di xamale ni kàddu yi société bii di SMK di wax daanaka loolu amul ba tax na sax fileeg ay fan yu néew entreprise yi nga xamante ni amal nañ leen xaalis dinañ leen fay moom Sophie Galadima moo nekk ci xët mu njëkk Dakar Times muy àddu ci ñàkkum carburant bi nga xamante ni am na ci wàllum napp gi ñoom nappkat yi daanaka jamono jile amuñu lii di carburant bi Vox Populi di ñu wax ni moom Galadima mu ngi jouer rôle sapeur pompier ngir fay jafe ci wàllum kérosène bi carburant bi ak gaz bi moom sax mooy yëkkati kàddu di wax ni daanaka mbir mi metti na waaye ñàkk bi ñuy wax amu ci fileeg ñaar fukki fan ak ñett ci weer wi ñu nekk lii problème bi dina saafarawu su du quotidien di àddu ci waa kër docteur ñoom ñi nga xamante ni dañoo bank seen ay yoxo diirub ñetti fan waa ànd gësëm ñoom ñu ngi wëyal xeex bi ci jamono jile ñu ngi ci seen juróomeelu plan d'action ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu nekk ñoom dinañ bank seen ay yoxo ñuy joxañ nguur gi nga xamante daanaka négociation yi ñu amoon amoon seen digganteeg ñoom ñoom gisuñu seen bopp Les Échos di wax génnu àdduna kii di astu Sokhna ñeent ci juróom benn sage-femme yi ñoom nag yóbbu nañ leen kaso ba ñeneen ñaar yi nga xamante ni ñoom dañoo toll ci diggante dañ leen def lii di bàyyu ndëganiku ñoom nag ñu wax leen déglu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu nekk Le Quotidien di àddu ci mbir mu ni mel di gis ni mbirum astu soxna daanaka lii di température bi dafa yéeg alerte Quotidien di àddu ci wàllum politique ak kàddu yu ñaaw yi ciy dégg wax yu ñàkk worma waxante lu dul dëgg moom journal bi gis ni politique fii ci Sénégal dafa commencé yàq diggante nit yi direct news di àddu ci wàllum politique ak Macky Sall ak ay allié am ba tax na moom journal bi samp ay laaj ndax ñii di allié yi amal nañu njariñ kii di Macky Sall ndax candidat wu Moustapha Niass ca kër Madiabel moom nag kii di Abdoulaye Diatta nekk maire moom moo ko daal di duma fële ca Louga Aminata Mbengue Ndiaye ndërmeelu bu baax gannaaw ba ko Moustapha Diop daal di daanee ca Thiès candidat wu réew mi yëpp ñoom dañ leen duma Idrissa Seck sax daanaka dañ ko toroxal ci bureau de vote ñoom waaye ci biir APR ñu ngi fay dégg ay kàddu ñaxtu le vrai journal àddu ci élection palum député yee am ci weerum sulet mu mel ni diggante nguur gi ak opposition bi lii di xeex bi tàmbali na te moonte sax élection bi jotagul moom journal bi samp ab laaj ndax Guy Marius Sagna mérité na am ab fauteuil fële ci assemblée nationale le témoin tamit samp ab laaj di wax ni ndax Amadou Ba moom fasam mën na gagné bu dee sax moom Amadou Ba bokk na ci ñi nga xamante ni def nañu liggéey bu am solo ci élection palum député yi atum 2019 te ñoom waa Benno Bokk Yaakaar am ci ndam ñu am solo tay jile moom Amadou Ba mënatul dajale ay mbooloo moom journal bi yokk ci ni moom mi nga xamante ni ab krag la daa mel ni jamono jile ab ragal la l'info moom njiitu réew mi Macky Sall la def ci xët mu njëkk ma mu daal di joxe ñaari baaraam yi mel ni ku kontaan moom journal bi di ñu xamale ni moom Macky Sall daanaka ñu ngi commencé gis xaa kanamam jamono jile mu ngi amal ab waxtaan askanam di leen jubóole ay meeru ku jégi mu leen di jël di leen xëcc ci wetam libération àddu ci mbirum jamono Seck ak boss bu SNAT ñoom nag suñu moytuwul yoon dina leen woolu ndax dañ leen di toppee luubal alal lu ci toll ñeenti milliards yu teg réew mi quotidien àddu ci wàllum càcc ju toll ci ñetti millions ñu say tudd doomu Aline Mbaye Ndeex moom mi nga xamante ni sax daanaka la ñu jàpp ni moo nekk ci ginnaaw stade àddu ci suñu gaynde yi nga xamante ni xam nañ ñi ñuy tasanteel ci éliminatoire Coupe d'Afrique bay am fële ci atum 2023 ca Côte d'Ivoire réew bii di Bénin ci la bokk ñoom waa Bénin daanaka saa yu ñu tasee yi ñoom gaynde yi dañ leen di duma Mozambique ñoom depuis atum 2010 ñëwuñu ñii di Rwanda ñoom bi mooy seen guléet dañ koy jeexaleeg record àddu ci match Liverpool démb te ñu duma ñii di waa Manchester United ñeenti bal ci dara doomu Sénégal bi di Sadio Mané def passe bu rëy dugal benn bal moom journal bi di wax ni moom Sadio Mané daanaka jamono jile mu ngi ci digg ndëndëm ñu yendoog jàmm